ñetti ci weeru octobre gi ñu ko fekk contrôle judiciaire ginnaaw coowal viol lu joru ci koom ñetti xale yu jigéen ñi ko toppee wàllu viol benn guddi rek la leen mbir mi xewee ba ca jiitu ci ndorteelu at wi la amee lay foo yéene kaay ne ñeenti xale yu jigéen kay ñëw tuumal kabiru mbuuj ne daa yegg seen kaw ci lu ñu bëggul maanaam da leen sii violé leen yéegle kaay bi ne ñetti viol yi ñoom xale yu jigéen yi nee nañu ma nga amee ci guddi juróom benn fan ci mu nekk moom Kabirou Mbodj ma ngay weddi tuuma yi ndaxte nee na di dëgg la xale jigéen yi teg ngir chantage ko jëlee koppar ci moom La Tribune Le Quotidien Le Témoin ak L'Observateur ne Kabirou Mbodj njiital wari waxtu yu mbir yaa ngi gënoon lëndëm ci koom ginnaaw coowal si tut bi nga xam ne amoon na ko këru liggéeykaay bi léegi nag coowal sii faj doore koom waxtu yu mi ngi ci contrôle judiciaire mbiri kay su ñaawee rek ñaaw na Alerte Quotidien ne ñeen jéggi frontière yi jaaree ko ca Mexique dem ca états lii laas ne José Mario Naves Joao Lorenzo ak Embalo ñoom ñëpp ñu leen di xaar ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ginnaaw forum de la paix ak sécurité wi ñu amal ci Sénégal bés bi la journée bàyyi Karim Wade Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf waxante nañu ci téléphone ñoom ñaari njiitu réew Sénégal woon ni démb lii ko jenne lan la Abdoulaye Wade Karim Wade du mandat ginnaaw seen jokko téléphone bi ni ki démb laatur bi ne yéenekaay tamit nee nañu léegi dootuñu gis a déggante ci téléphone te seen déggoo bi ne am na lu mën a soppi lu rëy ci géopolitique bu Sénégal maa ko wax de ne ginnaaw bi ñu ko jëlee ci bopp ministère bi ñu dénk wàllu tàggat ci Sénégal Matar Ba nag léegi mooy ministre chef de cabinet bu njiitu réew mi Macky Sall waaye enquête ne nag tabam googee nag mooy ni coow rëy waxtu yi jëppale ba foog soobi ne gars kay waxtu yi dañoo ñoom ñëpp rawatina yéen ci responsable wu rëy ca pale ba waxtu wi ku wax lii wax la ca des yëglekaay bi ne ñetti at genn wàllu ginnaaw bi ni ko tegee ne Mamadou Mamour Diallo léegi nag moo njiital ONAS l'exclusif ne benn acteur ci complot wi jolee diggante Sonko Adji Sarr ci coowal ndàmp li moom la fal démb ci conseil des ministres bi yëglekaay bi ne Mamadou Mamour Diallo léegi nag moo nekk directeur bu ONAS GP Quotidien ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay kaasee gaay mi benn par benn ndaxte Mamadou Mamour Diallo léegi nag ma nga ca ONAS Mayel nekk PCA bu SONES la turbine ne kër njiitu réew mi Macky Sall waxtu wi comme nag dara doxatul ci biir APR ginnaaw gënu waa Macky 2012 ñoo meroo futu becc nag ndaxte nee ñu mukk ci ni Macky Sall di doxalee waxtu ci bopp réewum Sénégal gaay dañoo mer de critique ne kër Macky Sall bi kay waxtu wi neexul benn yoon ndax daa xaar ay junniy morso ndax Thierno moo xëy di wax dëgg na mu yore kërum liggéeykaay bi waaye tamit di dal ci kaw Aminata Touré mi mi Thérèse Faye nii Aminata Touré nekk na fi premier bu Sénégal nekk fi jiital conseil gu ñu dekk wàllu justice yoon ci Sénégal léegi nag mu bëgg jiite assemblée nationale gars yi ne ko mu gën a du ci mu fépp mer génn Thérèse Faye ne Aminata Touré ne daa war a xam ne ëppul mérite gars yi nga xam ne ñoo nekk ci APR wala ci benn benn poste responsabilité gouvernement bu Sénégal Thierno Alassane Sall moo xëy di tas tasar contrat yu sife ci pétrole ak gaz bu Sénégal waaye tamit ci poste ndaxte nee li war dëgg nag mooy ñoo di Siré Dia ak Abdoulaye Bibi Baldé yi nga xam ne ñoo jiite woon poste mi nekk wax du ci sukuraat vox sobi ne en tout réew mi Macky Sall ma ngay yenn ministres yi ndaxte nee kenn mënta nekk ministre sa giiru dund le mandat ne ndawal seen ndaje bi Moussa Sow ne seen bëgg-bëgg nag dëgg mooy fexe gunge njiitu réew mi Macky Sall ci liggéey gu mu ci réew mi ngir mi tegu ci yoonu émergence le mandat yamu ca ndaxte nee na Moussa Sow kay nee bëgg mooy amal tournée nationale ci Sénégal ba noppi ci kaw njiital Pastef Ousmane Sonko ginnaaw nemeeku tur gu mu ci réew mi Moussa Sow ki gaayam nee na ñu nag nemeeku tur Ousmane Sonko tàggatoo tur la ndax léegi tay jeex l'évidence ne AFP bu Mbour ma ngay force sociale ak progressiste yëpp ak fu ñu mënta nekk ci réew mi ñu booloo doon benn joxante loxo ngir Sénégal jëm kanam yëglekaay bi ne ndaje bi ñu amal nag moo doon porox ndolu ci acteurs nga xam ne ñoo nekk ci wàllu tourisme ci Sénégal ñoom ñëpp rafetlu liggéey bi nga xam ne Aliou Sarr na ko ci bopp ministère bu tourisme Aliou ne li war dëgg mooy ñun ñëpp joxante loxo doon benn liggéey waaye tamit def suñu kéem kattan ngir réew mi bu doy war la wone ginnaaw ñàkkum ndox mi nga xam ne yenn école yi ñu ngi koy jànkoonteel ñu ne déet na waaye toilette yi nag bon salte tilim teg ci ba neexut jëfandikoo ak école yoo xam ne ñoo màgget ba xobi daas abri provisoire yi nag mel ni tulleeg male ci mi yëgle kaay ma ne bu Sénégal waxtu wi te loolee nag fépp la ci Sénégal tàmbalee ko ci Ndar Géej jàpp Mbuur ba Ziguinchor école yu Sénégal daal bi baaxul déedéet direct news ne ñaari téeméer ak yoo xam ne waxtu ci ndox mi nekk ay ministres yoo xam ne amuñu bureau ak suñu réew du Sénégal nga xam ne waxtu wi ñàkk luy baax la fenn seddul ginnaaw njëgu dund gu seer gi luyaas gu seer gi li lépp nag waxtu yi moo loolu tuko ci ko gouvernement bu Sénégal yëgle kaay bi bëgg a dëgg-dëgg xam ne ne gouvernement bi daal day yoon ndax fast track bi doon woote waxtu wi daal des nañ ko jëmal ci réewum Sénégal l'observateur ne jaaykatu poulet yi maanaam ginaar ci réew mi ci guddi gu ba dëgg nag la nekk ndax waxtu wi ginaar moom des nañ ko dëgg ngeen du ko ci réew réew mooy ferrailleurs yi ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne nee nañu nag ñu koy daj guddeeg bëccëg suba ngoon yëglekaay bi ne ferrailleurs yi nag jébaale nañu bu baax indien yi ndaxte nee nañu jafe-jafe yi daj yëpp ñooma libération ne mafia visa bi rendez-vous yi VFS yi demandeur et confession fausse carte de yi ñoom ñëpp daanu nañu yëglekaay bi yamu ca ndaxte nee na coowal cent millions moo joli ci alekaasa ndax dañ ko faa détourné ba waxtu wi nag coow li ma ngi yoon record yéene kaay ne salaire Aliou Cissé nag léegi jóge na 15 kaay bi ne bëgg-bëgg gaay yi nag ngir lamb yi léegi di door 16h maanaam ñetti waxtu mooy ni coow lu rëy ci lamb ji alaaji Sala Bigé Njaay bu yi rajo ak gaayam yëgle kaay bi ne tey yéen dañ def ci àkaraw taskul xabaar yi ngir wax dëgg seen taxawaay ginnaaw bëgg-bëgg bi ngir combat door ñetti waxtu ci bon libération ne musiba dëgg nag moom ca Pikine ginnaaw raay ndax benn waay boo xam ne bala sant am ñeent fukki at la fekk muy sëy ak benn xale bu góor boo xam ne fukki at ak ñett la am bi ñu ko laajee ci kanamu ëttu attekaay bi moom waa ji nag nee na da doon bëggante xale bu góor bii